asalaamaaleykum man ma dellu si waat pour ñu yàggali waxtaan bi bala may door <laughs> te mooy jégalu baal te baalu aax di leen remercier ci seen fidélité comme ni ma koy faral di waxee rek. Euh, budul woon yéen tamit def live bi du am benn sens donc maa ngi leen di remercier encore une fois si seen soutien seeni encouragement ak seeni prière yi ngeen may envoyé bés bu nekk euh, suma ma limee damay jum moo tax je préfère remercier leen rek yéen ñëpp euh, tey nag dinañu waxtaanee ay sujets yu différents waaye dina am yu ñu jiital yeneen yi topp si sama live bi paase dama wax ci affaireu mairie bu Dakar <laughs> ki war a remplacer Khalifa Sall waxoon naa leen daaleen les soo xam war diini moo ko war a remplacer ku fidèle la nag ci Khalifa Sall seen ànd yàgg na ça fait plus de vingt ans masàllah waaye xam nga politique rek niñ koy defee Sénégal dafa salte moo taxoon sama xel xaw a ñaaw tuuti si moom mais am naa yaakaar ni du wor Khalifa Sall bu neexee yàlla Khalifa Sall muy nit ku baax waa ji bu ngeen ko gisee mu ngi prison de waaye tey la gën a garder le calme foo ko fekk mu ngi sourire <laughs> te ci li mu xam li mu xam a bari li mu xam bu ko waxoon suba suba suba suba Sénégal yëngu mais mu ngi ne tekk rek toog jàpp ñàmburam parce que xam na ni <clears throat> bu waxee tamit comme genre trahison lay doon daal donc mu ngi noppi rek moo tax ma ne nekk gor yombul mun nga juddoo ci famille gor ba pare doo nekk gor loolu moo daal Macky Sall dégg am waaye buñ jógee ci loolu it duma fàtte sama frère Assane juuf assan juuf euh, maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaar di la ñaanal tey ñun ñëpp yaa ñu yee yaa ñu jox courage ñu am fitu toog fii tey di euh, xeex pour suñu réew am liberté surtout liberté d'expression justice bi aussi libre dëkk bi développé ñu am li ñu war a am au moins le minimum moom mooy ñi xiif mën a lekk ñi mar mën a naan ñi feebar mën a faju ñi war a jàng-jàng ci anam yoo xamante ni ci yooyu lañu war a jàng Eh, xam nga Assane Diouf macha allah man damay wax ni doo nit waaw ah, quand je dis nit mooy li ñu doon wax yëpp ak sa façon ba nga ko daan waxee ñu ngi koy gis benn par benn xam nga eh, Assane dafa waxoon Pape Diouf ni ko newoon naa la di ma fay mbaa mu fay la as Pape Diouf yaa ngi may déglu Assane Diouf waxoon na la di ko fay mbaa mu fay la fay na la nag jëppeet fay na la wallaay fay na la xam nga dafa am ñaari caga yu ñu yu Pape Diouf andi Sénégal fan yi muy Exodiyawo ak Jabasora xam nga Exodiyawo ak Jabasora ban profession lañu am ban qualité lañu am lan lañu am lu war a tax ñu war leen invité Sénégal pour ñu exhiber wu wane seen awra exode yi yow taat yu rëy rek la am ay taat yu rëy rek ak ay ween yu rëy te ay faux anse la ay faux sein la da ko chirurgie da ko opéré Daba Sora beneen caga bi moom lan la am dafa dàq sénégalais yi mais ay sénégalais yu ko gën a taaroo ngi mais sénégalais yooyu ñoo ko ëpp fulla parce que du ñu exhiber du ñu wone seen yaram ñaari cagala rek yu Pape Diouf dem jëli ci àll bi ñëw bëgg leen exposé ci kanamu sénégalais yi surtout ci kanamu jeunes yi nga xam ils ont rien compris ñaata jeune nga gis keroog aéroport ak suñu drapeau national di accueillir caga boobu fan ko teg pour lan pour lan naa leen wax moo nekk ci ginnaaw xam nga démb gis naa ñu bari di remercier préfet bi bi nga xamante ni moom moo interdit sabar bi gis nga préfet boobu kenn waru koo remercier mbaam la moom mooy mbaam numéro un ci ndakaaru yëpp préfet bi mooy mbaam numéro un ndax marché yi ñu interdit yëpp moom moo koy interdi euh, Omar Wat bi français yi rey rey saa laay wax parce que fu mu toll nii mu ngi ci digg dundoon diggante dundu ak dee ah marche bi ñu bëggoon def moom préfet bi moo ko interdit donc kooku amul luñ koy remercier liggéeyam rek la def te ñun ñoo koy fay pour mu def liggéeyam comprendre ngeen euh, li ma gën a metti ci affaire Umar Wat bi français yi dañoo ne Umar Wat dafa sàcc portable français yi portable militaire yi parce que il faut ñoom ñu créer argument pour accuser booy bi booy bu soxlawul téléphone booy boobu ci famille bu aisée la juddoo famille bu am alal sax papam macha allah desete na yàlla na ko yàlla yërëm mais alal bu bari la leen bàyyil xaalis bu bari la booy bi di doxantoo kat-kat bu tàng lay dawal am ay entreprise am ay restaurant comprendre nga booy bi soxlawul portable mais français imbécile yi il faut ñu jéem koo accuser quoi léegi suñu juge yu ñàkk fulla yi ah léegi dañ koo nara dañ ko nara libéré parce que ay complexe lañ xam nga waxoon naa leen fan yi ci ginnaaw waxoon naa leen ni euh, dafa am ay contingent yu Macky contingent français militaire français yu Macky dugal Sénégal booy bi dóor Omar Ba gaañ ko ci contingent boobu la bokk ci élément yooyu la bokk parce que xamuñu culture Sénégal booy yi di doog a doog a ñëw Sénégal la quoi booy militaire français yi doog a ñëw Sénégal la xamuñu vraiment culture sénégalaise comprendre nga parce que ñoom dañoo fooni li ñuy def ay Côte d'Ivoire ak li ñuy def ay Centre Afrique ak li ñuy def ci yeneen dëkk yooyu ñuy dem ay mission mun nañ koo def Sénégal parce que foofu dañuy jàpp xale yi di dóor di biiral di violer di def lu leen neex pour ñoom loolu mun nañ ko def Sénégal il se trompe parce que informé wuñ leen bu baax bu leen seen supérieurs yi informé woon war nañu xam ne Sénégal du genre dëkk yooyu duñ ko accepté force dañ koy jugé buñ koy extradé ñu extradé ko mu mu mu purge penam purge penam euh, France mais tribunal militaire nañ ko jugé parce que militaire la loolu bu amatee Sénégal jeunes yi ci boppam ñoo war a jóg raglal ko seen bopp comme on a benn justice de merde la ñu yor comprendre ngeen voilà foofu laay waxee bu ma jógee ci loolu euh, maa ngi koy ñaanal bu baax di masawu famem vraiment heure bu ma defee live dinaa ci wax heure bu ma defee live dinaa ci wax voilà euh, buñ jógee ci loolu dañuy wax aussi mbiru Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz dans les normes suba lañ ko war a libérer parce que purgé na penam defu ba la fay def six mois net six mois la ñu waxoon lañ koy tëj léegi nag soit dañ koy libérer soit ñu wax ñu lan ok Ousseynou jóob tamit na ko Macky libérer ban njëriñ la am ñu téye ko prison dañ ko juger wala ñu libérer ko ah dañ ko juger wala ñu libérer ko gis nga Ousseynou jóob surtout le cas de jóob deful dara deful dara waa APR yi ñoo gën a nekk ay imbécile nekk ci internet bi di def ay commentaires yu gën a salte yu booy bi def mais nañ jàpp ñoo ñu tëj leen na libéré booy bi maintenant man damooy jox Macky une semaine bu fekkee libeerewul booy bi vraiment dinaa wax ay affaire yu garaaw dinaa génnee ay bagages moom nag mooy choisir mooy xool waaw bu gis bu amul sens ah élection yi du ko fekk Sénégal man maa la wax man maa leen ko wax léegi sabar bi ñu bëri dañoo fone sabar bi amul waaye sabar bi am na <laughs> sabar bi démb am na sabar bi am na de sabar bi annulé nañ ko c'est que annulé nañ événement bu mag bi waroon am mais après benn événement bu ndaw lañ ko def ci benn salle caga yëpp tasafa mooy caga euh, exodi yawu ak caga yi mu àndal ñoom daba soora ak caga yi mu àndal ak yeneen caga sénégalaise yi Pape Diouf àndal yi nekk senegal démb ci benn salle lañ ko def comprendre nga def seen affaire bu ndaw euh, dañoo tere sax photographe yi nga xamante ni dañ fa daan ñëw euh, ñoom Amadou Gomis ak affaire yëpp dañ leen tere dugg ñoom son affaire yëpp pour gars yi téléphone yi dañ ko doon nangu ci entrée bi parce que gars yi bëgguñu ko ko filmer bëgguñu ko ko photo mais affaire bi am na affaire bi am na de léegi est-ce que Pape Diouf moom dafa waroon sax xaar. pour préfet woo ko ne ko na annuler sabar bi Pape Diouf au moins doo xale waroon nga xam ni Sénégal dañoo nekk ci déey Bruno Diatta décédé ok euh, Serigne Moussa Nawel Mbacke yaayam tamit ko ok ak yeneen décès yoo xamante ni gars yi waxuñu ko yooyu tey waroon na tax ba Pape Diouf annulel boppam événement bi mais xam nga genre Pape Diouf bi nga xamante ni xaalis lañ gëm tekkiwul dara ci kaw suuf à part woy te léegi woyu salta lay woy boo dégloo ay woyam dafay pervertir jeunesse bi yooyu moo war a jeex Sénégal ñun dañoo am benn culture boo xam dañ ko war a préserver comprendre ngeen waruñu nangu ku jóge fële di ñu fontoo di pervertir suñu suñuy doom ak ak affaire yooyu loolu dafa war a jeex mais li ko may fit dina leen wax lan moo ko may fit parce que en réalité Pape Diouf tooñuñu ñun gouvernement bi moo tooñ xam nga keroog bi caga boobu noonu jógee Côte d'Ivoire ñëw edog si yeewu ñëw Sénégal ñu ngi leen loosé Radisson foofu lañu fanaan ok mais dinaa leen wax kan moo nekk ci ginnaaw euh, euh, à votre avis lan moo war a andi ñooñu Sénégal sabar est que sabar moo leen fa war a andi ñooñu mënuñu fecc sabar ñooñu mënuñu fecc rëmtëm bi tam mënuñu fecc yaa asugay mënuñu ko mënuñu fecc waalo waalo mënuñu ko kon sabar andi wuleen Sénégal leneen moo leen andi du sabar moo leen andi munuñu feej Pape Diouf dafa amoon mission principale mission bi c'était démarcher directement pour satisfaire certains bandits di régime ku mel ni Aly nguy Ndiaye ak man Mansour fay ñoom ñaar Aly nguy Ndiaye ak man Mansour fay ñoo financé sabar bi man Ousmane Ba maa ko wax fu leer laa ko teg xam nga il faut ngeen may déglu ça fait six mois may def live six mois yàggul mais six mois yoo xamante ni début bi chaque jour ma def live après ma commencé ko def une fois par semaine deux fois par semaine depuis boobu ba léegi may wax loo xamante ni amul benn journaliste bu ko bind amul benn kuy def live ku ko wax lu ma wax du ma live bu ma def lu ma wax duma ma ci ñëwaat ci leneen laay ñëwaat lu bees tàq bu ma commencé wax ba léegi maa ngi attaque Macky Sall premier ministre ministre yëpp personnalité yu bëri Sénégal comprendre ngeen di attaqué ay journalistes même des gens yu nekk ci opposition bi di di di di di sensibiliser sénégalais yi di wax ah di révéler ay affaires yu garaaw est-ce que remarque ngeen boobu ba léegi amul kenn ku weddi lu ma wax personne kenn kenn kenn kenn ci ñoom weddiwul nañ weddi ne leen ñu weddi dafuñu sax parce que ñoom buñ ma dégloo nañ xam li may wax nii lu leer naññ la dañ xam ni kii xam na lu muy wax parce que ñoom ñoo ko def ñoom ñoo ko vivre mu yegg si si man ma xam ko ma wax ko nañ weddi te ñoom xam nañ ni ni ma waxee xam nañ ni kii lii mu wax nii waxul sa dix pour cent parce que man maa tey di ko waxee noonu damay junju rek bàyyi ci biir c'est pour xaar ñu weddi rek ma yeggale li si des wala publier bagage yi léegi nag comme ñooñu ñoo weddiwul ah comme ñooñu ñoo weddiwul benn kuy live ku ñàkk fulla walla wala benn ku kenn xamul ñëw naan day weddi li may wax wala naan daf may attaqué yow yaa ma xamul mais sa baay sa amul sama fit comprendre nga donc man ñooñu taxuñu maa jóg man sensibiliser sénégalais yi ñoo ma tax a jóg ñu si bëri ñu si yeewul woon yeewu wala ñu fàtte woon ma fàttali leen pour ñu développer suñu dëkk Sénégal dafa war a développer dafa war a dem on a les moyens pour le fair comprendre ngeen voilà léegi ñaar ñooñu ñoo financé ñëw ñaari caga yooyu te loolu bu amatee Sénégal te jeunes yi seetaan ko rek ñoom ñoo ñàkk fulla comprendre ngeen léegi xam nga dafa am beneen mbir Euh, bu ma bu ma bu ma bu ma bëggoon ñu waxtaane mooy euh, affaire u Dakar dem dikk Dakar dem dikk dematul dikkatul nan moo tax dematul dikkatul directeur général bi de maître Moussa Diop jël na xaalisu entreprise boobu di ko fowe di ko politique comprendre nga tey boo xoolee bu APR amee meeting bis yëpp lay jël jox ko militant wu APR yi ñu dem ci meeting yooyu ak événement yooyu loo xamante ni bien que mu sénégalais yi la loo xamante ni sénégalais yi ñoom ñoo ko bokk ñu jël ko di ko utiliser pour ay intérêt wu benn parti loolu du dëgg du yoon comprendre ngeen loolu du dëgg du yoon loolu trop c'est trop billahi wallahi sàcc na xaalisu entreprise boobu yàq na ko complètement avec la complicité de certaines personnalités yoo xamante ni waxuñu ko dara parce que daf leen di jox xaalis tey euh, fële wakam ci terminusu bus yi foofu jaay na ko dañu wax jaay sax mais daf ko may APR foofu la APR nekk di construire seen siège dégg léegi connerie bi mu mujjee def mooy euh, peinture bus yëpp marron beige loolu moom moo ko def moom moo ko proposé Macky def ko te xaalisu askan bi la ko defee beneen connerie bi mu mujjee def dafa jël centre médico-social bu dakaar Dem Dikk bu nekk Pikine mu tuddee ko turam moom moom moom ma ko ngénte parce que foofu dañ koo defaraat réfectionné ko defaraat ko ñu ngénte ko ñu ngi ko war a ngénte sax octobre octobre lañ war a def lañ war a def cérémonie officielle bi mais mu ngi ko tuddee maître <laughs> kii mooy bandi dëgg dëgg vrai vrai saay saay la billahi wal kitaabi mu ngi ko tuddee maître Moussa Diop centre médico social maître Moussa Diop yow yaay directeur entreprise boobu nga jël centre médical bi tuddee ko sa bopp mës ngeen gis loolu mais moom bu amul turandoo nañu ko wax ñu cotiser wutal ko turandoo comprendre nga mais centre médical boobu mais am na ay employé yoo xamante ni ñu ngi liggéey euh, Dakar dem dikk ba muy nekk jamono ba muy nekk Sotrac ñoo xam ne lu ne def nañ ko ci ci ci entreprise boobu noonu syndicat yi fa xeexal droit wu employé yi ñooñu ñoo gën a mérité centre médical bi nekk ci seen tur que yow mi nga xam ne yaay directeur wu euh, entreprise bi te nekkoo woo lu dul sàcc mais nañ wax ci loolu mais wax lañ ci loolu lan la maître Moussa Diop defal Sénégal ba ñu xanaa kooku man maa ko gën a mérité sax ñu tuddee moo ko man Ousmane Ba man mi dëkk foofu te def fa lu bari man lañ ko waroon tuddee ah wala au moins man maa ko gën a mérité quoi comprendre ngeen fan la teg loolu fan la ko teg loolu nañ ci wax loolu na ci sénégalais yu wax comprendre ngeen léegi bu ñu jógee ci loolu damay dugg ci benn mbir bu sensible mais dama bëgg ngeen dégloo ma xel pas xol comprendre ngeen xam nga fan yële ci ginnaaw dama leen wax ni ñu bëri ñu nekkoon PDS dinañu rallier Macky bi dinañ dem ci Macky effectivement après ci lañ commencé dem benn benn ñoom Farba Senghor di dem ñoom Fada Mor Diagne Fada di dem ñoom Pape Sam di dem Aïda Mbodj dem Aïda Diongue dem euh, ñoom ñëpp ñu dem ba mujjee war a dem kooku la Macky Sall la def tout pour mu ñëw mais kooku tamit moom laa la Ablaye Wade gën a wóolu parce que dañoo yàgg moo tax bi mu waxee bi coow li amee ñëpp affaire bi daf leen a jaaxal bi ma ko publier sama miir ñëpp attaqué ku nekk wax mais après dag leen gis ñoom ñëpp ñu commencé Euh, rasu miir yi parce que dañoo rus moo tax teey dafa baax man lu ma publier rek am na lu ma desal man lu ma wax rek am na lu ma desal la ma leen waxoon ci Moussa Sy sama live bale ne leen Macky recevoir na ko dina rallier dañoo xëy deux jours après gis ngeen moo defal déclaration bi boppam danaa leen waxaguma sax waxaguma patiente leen rek waxaguma mais da ngeen xam ne ñoom ñëpp ay mbaam lañ ñoom ñëpp a yem dañuy fonto seen intérêt lañ fi nekkee comprendre nga xoolal Moussa si nekk maire parcelle am salaire nekk conseil municipal maire euh, euh, mairie bu Dakar am fa salaire nekk PCA euh, beneen entreprise am fa salaire nekk feneen ak feneen am fa salaire ak njuuj njaaj yi ñuy def terrain yi ñuy jaay ak xaalisu juuti marché yi ñuy récupérer du dem trésor dama ne sénégalais yi lañuy ñuy fontoo ay sàcc lañ ñoom ñëpp këpp ku fi politicien dañ la fee war a jëlee andi lu bees comprendre ngeen léegi Madické Niang moom Macky da ko convoqué bi ko Macky convoqué ñu toog biñ toogee mu ne ko maître Madické ne ko waa président mu ne ko ah docu document bii de lañ ma andil loo ci xam maître xool document bi ne ko ah waaw léegi ah waaw nii nii de commencé patiner léegi loolu mooy d'accord na li nekk ci document bi document boobu mu ngi jógee ci corps de contrôle yi lu mel ni ay FNAC ak yeneen ak yeneen yi quoi euh, ak yeneen corps de contrôle yi nag di moins ak yeneen corps de contrôle yi que dañoo jàpp Madické Niang ci xaalis bu mu luubal depuis mu nekk ci gouvernement bi xam a gars yi dañuy def li ñuy def pour ñoom contrôle contrôlé wuñ leen fekk gaa yaa ngi leen di contrôlé gaa yaa ngi bind ay documents ci ñoom ay dossier ay bagages teg di xaar comprendre léegi bi ko Macky ne bi ma dikkee accepté loolu bi mu accepté ni effectivement loolu la que dafa luubal xaalis ñu Macky ko waa léegi loo ci xam ma dikkee ne ko léegi loo bëgg mun ne ko dama bëgg nga rejoindre ma ma dikkee ne ko loolu mën na nekk mais xam nga sama diggante ak Wade ni mu demee ak confiance bi mu am ci man su ma demee ñi comme ni ñoom far ba Mbaam demee ak ñoom Pape Samba Mbuub Mbaam demee ak ñoom Diagne Fada Mbaam demee ak ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye Mbaam demee dafay flagrant comprendre nga donc bàyyi ma ma trouver stratégie ma ne ko waaw maa ngi lay déglu léegi ci la ma Madické ñaa envoyé benn waay mooy kooku mu naan moo bind lettre bi te yëgu ko ko xamu ko benn yoon la ko gis ay neefare la lépp stratégie la woon kooku bind lettre bi comme quoi ma Madické Niang dafa bëgg nekk candidat wu PDS xam nga loolu mu ngi provoqué Abdoulaye Wade réaction wu Abdoulaye Wade la lay xool mais ñun dofuñu parce que ñun xam nañ ni Madické Niang ak Abdoulaye Wade amuñu intermédiaire seen diggante amul limite chaque jour dañ daan waxtaan téléphone wala kii dagg bi dem fekki kële Paris wala Qatar ñu waxtaan ba jubo ci lu jëm ci affaire parti bi ak yeneen i bagage mais tey ñuy waxtaane lettre tey loolu mooy ma Madické da doon jéem a fontoo euh, Ablaye Wade mais xamul ne Ablaye Wade moo gën a muus famille mi yëpp bu ñu leen dajalee Ablaye Wade leen gën a yeew comprendre nga donc ils ont euh, euh, trahi Ablaye Wade léegi bi mu bindee lettre bi Ablaye Wade tontu ko bi ko Ablaye Wade tontoo mu tiit après moom mu tontu Ablaye wadd ba pare dem Qatar seeti Ablaye Wade Ablaye Wade moo tey tontu ko parce que comme lettre la ko bind. publier ko ci toile bi Ablaye Wade tamit publier ko ci toile bi Ablaye Wade da doon avertir population bi que tey waa PDS ak population sénégalaise bi daf leen doon avertir que bu fekkee ma dikkee trahir na ma rek gis ngeen nim ko defee ak lay xew léegi nag bi loolu amee ma dikkee tiit bi ma ki dig ma dikkee tiitee mu dagg bi dem Doha mooy Qatar bi mu ñëwee lundi bi paase moom ak Ablaye Wade rek ñoo toog ñu waxtaan mais d'accorduñ ci wax mu commencé guddi Ablaye wadd ne ko nañ yeggali deme mardi bi mu toog ak Ablaye Wade ak aussi Karim Wade mu ngi toog waaw Karim Wade fekkee wax ji euh, mais Karim Wade accepté li ko ma dikkee proposé donc ma dëkke ak Ablaye Wade ak Karim Wade d'accorduñ ci wax parce que lu luñ ko mën a proposer tamit du ko accepter parce que moom dafay dem ci Macky il est obligé mu dem ci Macky ak lan moo tax aussi il est mu war a dem ci Macky ma dikkee gars yi dañ koo photo mu toog ak benn femme femme boobu mu toogal femme bi dafa am jëkkër ok mais femme bi dafay génn ak ma dikke jëkkër ji jëkkëru femme bi bi mu demee ba découvrir loolu mu fase jabar ji bi mu ko fase ma dikke takk ko takk suuf léegi ñoom ñaar am na ñaari doom loolu dinaa si dellu si dinaa publier ay photo ak photo femme bi bu fekkee ma dikkee weddi na li ma wax rek dinaa ko publier gis nga boo ma xamul danga may laaj ma Fatim mbay ñun ñoo dëkk bëgguma sa dugg ci détail yooyu sa soxna soosu noonu man maa ko yar troisième femme loolu du ma dugg ci détail yooyu duma dugg ci détail yooyu parce que ñooñ samay dëkkandoo lañ samay xarit lañ mais yow personnellement ma digg ñaa damay wax ci yow force parce que da nga ñoo bëgg a fontoo fi nga jaar ak Ablaye Wade ak li la Ablaye Wade defal yépp tey nga bëgg koo wor man Ousmane baa du ma seetaan loolu du seetaan ngeen di troxal paa bi pour benn imbécile bu mel ni Macky Sall comprendre ngeen te Macky Sall euh, Abdoulaye Wade moo ko def li mu nekk tey donc yéen ñëpp bu ngeen d'accord pour ànd ak Macky Sall pour toroxal Abdoulaye Wade loolu man duma ko seetaan parce que Macky dafa bëgg a wàññi dooley Abdoulaye Wade bu wàññee doolem ba pare comme ça lu mu ko proposé rek da koy nangu parce que Macky Sall fu mu tool nii nangu na pour dem nangu na pour pour pour pour pour pour pour bàyyi pouvoir bi dem ci élection yi quoi élection sax est-ce que dina am février deux mille dix-neuf wóorul da parce que ñoom dañ ko bëgg a pousse ba décembre ñu ngi ci pourparlers yi léegi on verra est-ce que dinañ ko pousse ba décembre wala dina am février français yi aussi ils sont d'accord pour Macky dem mais il faut kiy remplacer Macky garanti leen les contrats yi ñu signé ak Macky loolu rek mooy problème mu français yi mais bés bu ñu amee koo xamante ni d'accord na garanti contrat yi rek Macky dafay dem ok mais Macky aussi ki koy remplacer daf ko war a garanti duñ ko poursuivre tu vois duñ duñ duñu duñu duñu jéem a lijjanti alalam duñu jéem a lijjanti ay frère am duñu jéem a lijjanti xaalis bi famem yor duñu jéem a lijjanti say ministre ak affaire yooyu quoi loolu yëpp gaa yaa ngi ciy waxtaan mais je vais vous parler aussi ci même sujet bi euh, benn mbir bu xaw a sensible mais dinaa ci wax parce que man Sénégal moo ma intéressé man faalewu man comme ni ma leen waxee rek je suis prêt à aller en prison wala ma dee sama yoon nekku ci mais au moins génération bii ñëw dinañ xam ni amoon na ay jeunes yoo xamante ni seen dëkk am na lu leen jaraloon comme ça ñu inspiré wu ci loolu pour taxaw taxaw bi nga xamante ni en tant que citoyen wu dëkk noonu nga war a taxawoo sa dëkk yeneen yi si des yëpp ay futilité la comprendre ngeen comme li ma leen wax rek bokkuma ci benn parti man bokkuma benn parti man xaaruma benn poste ci benn leader je m'en fous comprendre ngeen wallahi azim du ay wax neen du lu may naan tamit ay waxet man Ousmane Ba ñi ma xam xam nañ bu baax man may kan xam nañ ma ñi ma xamul nag peut-être xamuñu ma mais man loolu intéressé wu ma euh, Abdoulaye Wade ak Macky Sall dañoo concluroon euh, benn contrat xam nga exilu Karim Wade Qatar Ablaye Wade bi Macky tëjee Karim Wade affaire bi dafa métti Ablaye wadd moo tax dem na fu ne pour clamer Macky dem na ci loge franc-maçonnique yi mu bokkoon mais loge yooyu taxawuñ ci niñ ci war a taxawee parce que Ablaye Wade dafa bàyyi loge yooyu Abdoulaye Wade effectivement bokkoon na franc solo la woon wax na ko moo ko du man maa ko créé moo ko waxoon moo ko waxal boppam moo ne bokkatu ci loolu moo ko waxal boppam archive yaa ngi fi du lu ma ko accuser comprendre nga ñooñu faale wuñ ko parce que daf leen trahir dafa génn ci loge yooyu xam nga loge yooyu ay fraternité la boo xasee ba waat ne bokk nga ci rek dee rek mais waroo ci génn mais Abdoulaye Wade xam naa dafa dem ba commencé euh, jël âge mu xam ne léegi jaamu yàlla moo ëpp solo que yi si des yëpp mu génn ci loolu léegi bi mu bi ko affaire bi dépassé mu dem seeti benn xalif benn xalif généralu benn tariqa bi mu demee mu seeti ko euh, mu teg kooku pression parce que kooku aussi xaritam la te li ko kooku magee bëriwul wala ñu nekk même génération wala Abdoulaye Wade sa mag ko euh, ñooñu teg pression Macky mais Macky dumboo yu leen Macky dumboo yu leen carrément gars yu continuer si liñ nekk faalewuñ libération Karim mais dafa am benn instant Karim dafa commencé woon am ay dépression biir prison lii may wax nii nag ñee xam dañoo bëgg Karim trop wax bi du leen neex te peut-être mun nañ ko comprendre neneen mais man Ousmane Ba da ngeen ma war a sant bu baax parce que maa ngi leen di jox information yoo xam man su ma ko génneewul woon wala ku mel ne man génnee ko ba àdduna di tukki du ngeen ko xam parce ay information top secret la comprendre ngeen léegi euh, ba ñu ma ko weddi li ma wax mais danga fay teg leneen <laughs> parce que jim concerné sax duñu weddi li ma wax duñ ko weddi duñu weddi xam nañ bu baax kii li muy wax da koo xam ten xam nañ ni waxuma sax li ma war a wax lépp dama ci cof tuuti rek li des dama koy denc te xam naa lu tax ma koy denc léegi bi loolu amee parce que comme dañoo amoon benn pacte bi loolu amee Macky d'accord parce que Macky parce que xalif général boobu dafa yónnee ci Macky mu yónnee ci Macky Macky à la fin mu d'accord parce que yónnee na lu bari Macky di ko dimbooyu léegi dernière euh, émissaire bi ki mu yónni Macky ne d'accord na mais dafa teg ay conditions condition yooyu noonu mooy que dañuy exiler Karim dina ko libéré mais day génn mu dem Qatar France la ko bëggoon yóbbu mais Karim moo ne du dem France parce que comme prince su Qatar bi xaritam la ñoom ñoo doon jàngandoo France euh, mu ne foofu lay dem parce que foofu xam na ne bu fa demee dina nekk ci condition yu bien mais pacte bi daf ko wax ni da ngay dem ab nga ñëw après les élections de deux mille dix neuf rek ngay am droit dugaat Sénégal mais doo bokk ci élection yi doo c'est un pacte boo xamante ne genre pacte maçonnique yooyu loo quoi pacte boobu ñu ngi ko woowee pacte de non agression ok donc ñoom ñaar ils sont obligés ñu respecter ko léegi raison pour la laquelle Karim Wade deful benn déclaration est-ce que Karim Wade bi mu génnee Sénégal ba léegi gis ngeen ko mu def déclaration nii sur Facebook ni sur tele ni sur rajo ni sur les journaux ni sur les sites d'internet musu leen dégg Karim Wade mu wax wala mu patati léeg-léeg rek ngay gis ñu naan bind na bind na te du moo koy signé la plupart gars yi bind naan Karim nee na lii Karim nee na la wallahi azim du ngeen ko dégg mu wax du ngeen ko dégg mu bind du ngeen ko sa gis bu ngeen amul sens comprendre nga léegi euh, pacte boobu bu muy am dafa am ñu ko fekkee pacte boobu bu muy am Abdoulaye Wade mu ngi toog Macky Sall mu ngi toog Madické Niang mu ngi toog ak doomu xalif boobu noonu ma leen wax mu ngi toog taawam ci boppam <laughs> comprendre ngeen aslem la dëkk mais loolu yëpp amul solo euh, moo tax ma ne leen PDS dañoo war a wut beneen candidat parce que pacte bi Ablaye wadd dafa bëgg a violer pacte bi moo tax mu yëngal parce que Ablaye Wade dafa ne dafa bëgg a gis Karim Wade jël pouvoir bi avant moom muy làqu yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam may ko gudd fan ak wërgëram ak sutura mais objectif am mooy Karim Wade jël pouvoir bi année bii nii deux mille dix neuf comprendre nga parce que bu yàggee tuuti dootul am kàttan mais dama bëgg wax maître Ablaye Wade mu bàyyi Karim mu def lu muy def parce que Karim Sénégalais la góor la il jeune am na avenir bu nekkul deux mille dix neuf dina nekk beneen dix neuf rek wala mu nekk beneen année rek wala mu nekk beneen période bu ko yàlla tuddee comprendre ngeen mais parti bu mel ni PDS ak li mu def Sénégal yëpp ak li Abdoulaye def Sénégal yëpp ak ni ñu yàggee ak li ñuy représenté ñu nar koo tas ni nar koo yàq c'est pas normal. te Ablaye Wade da si am part responsabilité bu fekkee PDS tas na parce que munoo wax sa doom rek sinon personne loolu munul nekk lu mel nii moo taxoon Idrissa Seck génn PDS mer mais dans les normes Idrissa Seck kooku moom moo waroon remplacer Ablaye Wade Ablaye Wade bu fekkoon dëgërul bopp trop ah, dafa war a woo Idrissa mu baalu ko àq publiquement xam na ni dañ koo jaxaseeg moom te ki ko jaxaseeg moom mooy Macky Sall na baalu ak Idrissa Seck publiquement ñëpp di dégg na réconcilier ak Idrissa Seck réconciliation bu leer laa la wax te daan la norme moom la waroon delloo parti bi sax mais c'est trop tard am na partem comprendre nga man foofu laay waxee moo tax ma ne leen Madické Niang di ngeen ko gis fan yi rek mu lancé mouvement am te bu lancé mouvement am Macky dina ko bàyyi mu def ay mu récolter ay signature mooy parrainage bi nii mais xoolal buñ demee élection Macky lay jàppale man maa leen ko wax du dañ bind leen waaw Ousmane Ba moo leen may boobu léegi mooy li ma leen doon wax rek bi ma dalee wax ba léegi amul kenn ci ñoom ku ñeme tontu duñ tontu duñu tontu parce que xam nañ li may wax dëgg la buñ jógee ci loolu damay dellu rek fàttali Aline Sow tuuti ne ko làmminam bés bu ko ubbee te rek ma yokk xam nga Alioune Sow c'est un ingrat Alioune Sow bi muy nekk Mboro benn famille bu sant Thiam ñoo ko loose woon Ibra Thiam mais ñu bëri ñu ngi ko xamee ci Pape Thiam soxnaam mu ngi tudd Anta Thiam euh, asafurla soxnaam mu ngi sun ngi mu ngi tudd Anta Waaj Anta Waaj ndeysaan ku bëggoon Alioune Sow la doon ko toppatoo ñu koy jàppale mu jàng ci anam yu bien léegi Alioune biñ ko falee ministre pratiquement dematu fa woowutu leen ñooñu buñ ko woowee sax du leen wuyu amatul soxla ci ñoom te ñoo ñoo ko jàppale un jour ñooñu envoyé nañ fa. seen benn doom bu jigéen bu tudd Njaay Caam Njaay bi mu ñëwee Alioune ak jabaru Alioune Sow yëpp dañ ko doon maltraité d'ailleurs fi boni sax di fanaan lañ ko yóbbu muy fanaan donc Alioune xam nañ la bu baax a baax a baax sa lépp lañ xam yow lañuy xaar nga waxati wax bu bon rek ci Sonko wala ci kii que ce rek ñu wax leneen li ñu xam te bu ñu waxee rek nga làqatu man maa la ko wax voilà waaw ah, kay foofu rek laa ko bëggoon fàttale tuuti comme ça mu tëj làmminam léegi buñ jogee ci loolu balaa may continuer damay dugal sama benn invité Euh, voilà en parlant de parrainage ma di ki ñaa commencé na parrainage am fële ca yeneen dëkk yi comme ay Maroc ak yooyu mais damay dugal sama benn invité mu am lu mu partager tuuti ak ñun après ñu continuer envoyé naa demand bi général boo gisee nga accepté ko ñu continuer wala nga def benn commentaire ci commentaire boobu noonu mun naa la ci jël voilà léegi xam ngeen Sénégal dëkk la boo xamante ni dëkku jàmm la léegi waruñoo bàyyi ay politiciens di ko yàq ñun waruñu ko nangu musa si moom aussi gars yi dañ ko jàpp ak benn femme bu mu doon doxaan femme bi xam naa turam mais du ma ko publier parce que doom yee tax euh, femme bi nag Moussa si moo ko wutal liggéey impôt et domaine léegi mu am beneen femme bu mu ëmbal aussi Moussa Sy meeru parcelle laa leen di wax de mais doom ji da koo bañoon après ci la ko accepté léegi accepté na ko quoi loolu c'est bien ma koy félicité si loolu parce que moom moo laal xale bi ba xale bi biir donc warul bañ doom bu ci juddu donc pour vous dire rek que ay vrai vrai vrai vrai vrai ñoo ñu diriger léegi njiit nag nu mu mer rek. bu ñu amul sens fi mu jiite noonu lay mel parce que yooyu muy def lay foone ni baax na moo tax fekk baaxul moo tax mën a leen ren ci yéen ñu jëlee fi gaay ci yéen daal la des ñu jëlee fi yi parce que il mérite pas à nous briser voilà kooku mooy euh, général Ousmane Ba général Ousmane Ba kenn dootul euh, présenté maa ngi lay nuyu. di la remercier bu baax si sa soutien ak sa taxawaay. léegi général dama bëggoon laaj la ci. Mhm. Euh, li fi xew fan ci affaire Pape Diouf bi yow noo ko gisee. waaw bon avant tout bon maa ngi maa ngi ziar gaay yi di gars yi maa ngi leen di ziar di leen nuyu di leen baalu àq te di leen baal àq di wax ne man bàyyi naa bàyyi naa saaga quoi dootuma saaga léegi bàyyi naa saaga bon pour commencer euh, man je pense bien que ne Sénégal ñun am amuñu problème quoi amuñu problème ak kenn xam nga kan lañ amal problème ñun sénégalais yi ñun ñoo am problème ñun si suñu biir le problème le problème de comment dire des valeurs ñun dañu am problème mu problème mu problème mu retrouver suñu ay repères man pour man Sénégal dañu am problème mu retrouver suñu ay repères waaw kay noonu la ko waxee dañ maanaam li ñu fi bàyyiloon pour ñu war ko roy léegi maanaam loolu noon dafa dem ba nga xam ne moom dafa disparaître mooy lan mooy jom fulla fayda ak ngor amatul Sénégal amatul Sénégal donc Sénégal dafa nekk réew ma nga xam ne léegi ñun royatuñu dara lu baax léegi ñun lu bon rek la ñuy roy lu bon kese kese kese kese kese la Sénégal di roy man dama lay dama leen wax benn affaire man je n'ai contre je rien contre Eudoxie Yao je n'ai rien contre Diabosora au contraire ay africain lañ comme ñun yor seen carte d'identité ak passeport CEDEAO bu leen neexee ñu ñëw Sénégal heure bu leen neex d'accord amul problème heure bu leen neex mun na ñëw Sénégal parce que ñun dañuy jël fii vol dem dem dem dem que mu nekk Côte d'Ivoire wala que mu nekk Mali sans problème comprendre cest dire yenn yenn Sénégalais yi nga xam dañu bëgg a jël wax ji xam nga dëkkalee ko ci que ne bon ay africain lañ cest dire nañu arrêté loolu nañu arrêté loolu bépp africain bu am valeur bépp africain bu am valeur soo jugee si si si sa réew nga dem si sa beneen réewu morom dañ lay xoolee image yu sa waa réew lañ lay xoolee comprendre nga man je pense bien que ne Odexia amul benn benn benn benn benn qualification Odexia amul benn benn particularité Odexia amul benn benn valeur bu nekk ci moom bu nga xam ne ñun sénégalais yi war nañ ko roy benn ñaareel bi mooy ki ñuy wax euh, Jabosora Diaboussoora ñëpp xam nañ que ne moom tamit amul benn valeur cagala comprendre nga cagala Odexia cagala euh, euh, comment dirais Diaboussoora cagala donc ay caga ñun boo demee ñun Sénégal ba di ñu indil da nga ñuy indil ay nit ñu am valeur ña nga xam ne ñun au moins mën ñu roy ci ñoom comprendre ña nga xam ne tey au moins ñii bu ñu ñëwee kat ñun suñu jeunes yi suñu xale yi ñi nga xam ne maanaam dañuy taxaw dinañ xool suñu leen xoolee danañ xam ne carrément non ñii kat ay nitu valeur lañ mais li ma gën a tee metti mooy ñun suñu drapeau national amatul valeur drapeau Sénégal vert zone rouge ak étoile bi ci digg bi amatul valeur ñàkk valeur moo moo waral le drapeau était en berne bu ñu wax naan drapeau mu ngi en berne c'est parce que président dafa décréter benn benn benn bon pour ñi xamul lan mooy le drapeau en berne dafa décréter benn deuil national wala mu décréter leneen ak leneen ak leneen comprendre nga donc su lolu amee je pense que ni journée boobu noonu drapeau bi amul droit yi amul droit yéeg fi ñu ko war a takk foofu lañ koy takk donc ñoom suñu demee bay dem di jël suñu ay drapeau di dem aéroport di ci teeru ay nit ña nga xam ne ay prostituées de luxe lañ ah là ça pose problème ça pose vraiment problème Sénégal dañu war a xoolaat suñu ay valeur ñun Sénégal dañu war a xoolaat suñu bopp comprendre ñun Sénégal man damay man damay ragal ne sax ñun est-ce que Sénégal est-ce que ñun alku ñu ñun dañoo alku man je pense bien que ne ñun dañoo alku parce que alku alku mënut a weesu yow ñun Sénégal bu njëkk ay ay ay ay ay kilifa ñoo doon duggee ci ay ay réew lu mel ne ñu ne non benn shérif mu ngi jugee Mauritanie di ñëw Sénégal doo gis kenn ku dem teeru ko ñu ne pape bi mu ngi jugee pape Vatican bi mu ngi jugee Vatican di ñëw Sénégal ñoo ngi fay gis du bëri comprendre nga ñu ne non benn xalif mu ngi jugee fële ñu ngi fay la preuve en est que muha muhaaji xawma muhaaji naka la tudd booy boobu noonu jëloon euh, jëloon champion du monde ci récit euh, affaire tare alxuraan yooyu noonu bi muy ñëw aéroport benn nit taxaw fa benn benn nit taxawul foofu noonu donc loolu rek déjà ñun dañu ñun dañu war a xoolaat suñu bopp ñun Sénégal dañu war li nga naan dañu war a defal ndëpp national Sénégal dañ ko war a defal ndëpp national parce que Sénégal man je pense bien que ne dañ yàlla da leen a alak dañoo alku alku mënta weesu nga mais mais mais mais dooguma la ndëpp national bi buñ ko doon def ñaata nag lañ war a rey xanaa kon seize millions de nag lañ war a rey sénégalais bu nekk benn nag sénégalais bu nekk benn nag bilaay dañ leen war a defal ndëpp national lañ leen war a defal ndax Sénégal billaay wallahi taala Sénégal actuellement nii muy pays bi nga xam ne ñoo gën a alku sur terre dañoo alku parce que alku mun ta weesu nga am lu toll ne maam Alaaji Malick am lu tol ne Serigne Touba am lu toll ne Baye Niass am lu toll ne maam Boukounta Ndiassane ah am am am lu toll ne maam Limaamu Laay te dëkk boobu mënul développé dëkk bi mënul développé léegi dem nañ ba nga xam ne léegi nag loolu doyatuñu léegi ay caga léegi la ñuy dem di jël di leen indi Sénégal pour léegi moom ñu mën a ñëw nag commencé wane nag léegi seen taat ñii di ko wane seen ween ñii di ki tey jii nii euh, Odexia tey dafa am benn influence bu grave bu mu am parce que ñëpp xam nañu que ne Odexia li nekk ci moom du lu naturel exemple laa la du lu naturel donc ñun suñu xale yu jigéen yëpp tey à partir de démb je sais que ne ñu ngi toog ci internet bi di jéem a xool nu ñuy def pour gonfler ay taat comprendre donc un danger danger danger gi noonu Jaba Sora caga ba nga xam ne dañ la fay quinze millions quinze millions la la ministre bi jox nga non non nga ne ko man sama fël-fëlaale rek ëpp na quinze millions comprendre nga man li may fël-fëlaale rek ëpp na quinze millions donc te jusqu'à présent amul benn ministre bu génn mu weddi ko comprendre amul benn su fekkoon tey moom li mu wax du dëgg kon kon tous les ministres dañuy réunir ñu porter plainte au nom du gouvernement Sénégal su fekkoon dañu nekk dans une république normale mais Sénégal malheureusement Sénégal du du du du du réew bu normal xam nga la jeunesse devient inconsciente a amatuñu xalaat xam ñu xool nu ñuy def moom pour pour pour développer jëmuñ Sénégal ci ay caaxaan nga leen woo ñu lay wuyu mooy kaa leen ñu dem teeru ay jabo soora kaa leen dem te teeru ay caga mais kaa leen def benn combat patriotique pour libérer seen seen seen dëkk non ñoom ñëpp xoolal ñu toog seen biir kër yi toog ko woo kañ dem ñu libéré Assane Diouf mu bañ kañ dem libéré Barthélémy Diaz mu bañ kañ dem libéré Khalifa Sall mu bañ donc ñoom daal mën nañ ne ñoom seen effort yépp se seen seen seen ay ay ay effort yëpp dañ koy def ci lan si xumbaay mbumbaay ak rumbaay man je pense que ne dafa doy dafa doy les sénégalais dañu war dañu war a revenir aada maire meilleurs sentiments les sénégalais dañu war a xoolaat xam nga delluwaat dem dem gasaat seen ay gasaat seen cosaan xoolaat seen ay valeur xool ñoom ñooy ñan parce que tamit wàcc wàcc ànd rek ànd boo dem da fay fekk dañ nga koy fekk maanaam borom mu toog ñun actuellement ñun li ñu jël adopté ko du ñun ñun Sénégal actuellement li ñu jël adopté ko non loolu du ñun ñun actuellement ni dañu war a xoolaat suñu bopp parce que tamit jeunesse bi ma gis nii wallahi lazim du jeunesse bu ñuy compter pour defar Sénégal suba jeunesse bi nekk nii nii nii nii du jeunesse ba nga xam ne tey dañuy dañ koy xool pour mën a pour mën a yaakaar benn Sénégal bu baax suba Odexia dëkkam tekkiwu fa dara Jabosora dëkkam tekkiwu fa dara ñoom ñëpp géwél yi rek ñoo leen xam te xam nga ni géwél moom weñ ne rek géwél weñ la fu tooy rek mu takk ko mën a jox xaalis rek lay àndal comprendre nga donc boo xoolee tey ay alaaji mbay péex ay ay ay kii ñoo ñëpp tey déggoo kenn wax si ñi nga xam ne dañu leen wooye ay mag ñu baax ñu nekk Sénégal ne ñoom dañuy xeex pour ay valeur déggoo ci kenn mu wax comprendre donc man je pense que ne la jeune sénégalaise la a besoin de trouver ses vrais repères xam xamaat lan mooy lan mooy àdduna parce que ñun Sénégal actuellement ñun xamatuñ lan mooy adduna ñun dañoo réer réer la ñu def réer completement la ñu def léegi ñun Sénégal lu bon rek la ñuy roy Sénégal jamais ñu roy lu baax léegi lu bon kese kese kese kese kese la ñuy roy waaw léegi nag ñun bu fekkee ñun dem nañ ba nga xam ne jeunesse bi nga xam ne ñun ci ñun la ñu war a am yaakaar ñun jeunesse boobu léegi ñun ñoo wëlbati ko tey jii nii xam nga trahir li fi suñu ay maam baay woon waaye léegi où va le pays. waaw je pense euh, li nga expliqué leer na te dëgg la vraiment dafa am aussi euh, parent yi yenn marabu yi yenn kilifa yi. dañ ci am aussi mm-hmm. part de responsabilité parce que ñoom aussi euh, seen position genre affaire bu amee waroon nañ leen dégg ñu wax ci ñu tere ko dañ ko war a tere xaw ma ndax nag def nañ ko xaw ma ndax def nañ ko si suuf wala def nañ ko si suuf mm-hmm. mais j'aimerais bien dégg benn xalif général porte parole am euh, def déclaration ne sëñ bi rafet rafetalu lii sëñ bi nee na lii ak lii ak lii quoi comme ça suñu mm-hmm. autorités yi déglu ñu parce que xam autorité yi ñoom Euh, seen objectif moom mooy détourner nit ñi quoi comme ça nit ñi. Mhm. pendant benn une semaine ñu nekk ci benn affaire ñoom ñu mën a def li ñuy def quoi comprendre ga ñoom mhm. loolu. loolu loolu ñoo koy tey mooy comme concert Wally Seck bi Mansour Faye defoon euh, Saint-Louis rek pendant temps boobu mhm. noonu ñu fay ko plus de vingt millions pendant temps boobu noonu wala lu ko pendant temps boobu noonu am ay citoyens ay Saint-Louisiens mhm. yu yu yu nekk ci ndox ci ndox pendant ay at ñu ngi ci ndox wala un an wala lu ko lu ko ñu nekk di ci biir ndox ci biir ndox comprendre nga mhm. Mhm. donc ñoom dafa mel ni xamuñu priorité xoolal par exemple Macky Sall Macky Sall depuis sept ans mu ngi jox journalistes yi sept cent million sept cent millions c'est pas xaalisu sénégalais yi moom mooy aide à la presse bi mhm. comprendre nga mhm. sept cent millions sept cent millions mhm. jënd na machine u radiothérapie xam nga ñoom bu ñu bëggee sàcc xaalis dañ naan radiothérapie bi mu ngi jar deux milliards sept cent soixante six million cent soixante onze mille quatre cent trente CFA loolu la ñu wax loolu lañ jox seen journaliste yi pour ñu bind ko publier ko pour sénégalais yi gëm ni loolu la radiothérapie bi di di jar ay fen la mhm. radiothérapie mhm. radiothérapie bu baax jarul cinq cent millions CFA nañ ma jox cinq cent millions ma jëndal leen radiothérapie xanaa ñoom dañoo mhm. foog ne ñi dañoo dof nekkatuñ ci période boobu léegi lu nit bëgg xam boo demee Google da nga koy Google même boo amul réponse exacte bi di nga am lu ko xaw a nuróol nañ bàyyi xelu sénégalais yi ñuy foowe pourquoi ñuy jox sept cent millions ay individu yoo xamante ni dañoo jóg jënd benn nom de domaine à dix dollars jënd hébergement construire site site yoo xam ne si bëri code wuñ ko sa ay ay ay template euh, euh, euh, WordPress lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko construire bu ñu xëyee wax lu leen neex di fen rek léegi chaque année mhm. ñu ñu séddale leen sept cent millions pour lan mhm. fan lañ ko teg mhm. gis Ousmane mhm, gis nga Ousmane dafa am benn affaire ba nga xam ne dafa am c'est-à-dire euh, xam nga Trump dafa waxoon ne euh, l'Afrique c'est un pays de merde mais Sénégal c'est un pays de merde gars dañ koy dégg dañuy dégg wax ji mu leen naqari mais Sénégal c'est un pays de merde un pays de merde mooy lan mooy un pays où la population ne parvient ne parvient même pas xam nga à a comment dirais-je xam nga de de de de se soigner xam nga de de de trouver de quoi à manger xam nga xamuñu fañ lañ jëm jeunesse bi réer nañ amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan comprendre nga Ousmane man je pense bien que ne tey jii nii ah ñun tey jii nii suñu yenn sëriñ yi dañu war a delluwaat ci seen tool yi bay delluwaat ci daara yi jàngale ji comprendre nga mais ñun bu ñu demee ba nga xam ne ci ci ci ci ci ci am réew sëriñ bi nga xam ne tey mosoo dégg fu ñu waxee. Euh, si po exemple la dégg fu ñu waxee ne ex ex sëriñ ex sëriñ doo ko dégg ex sëriñ musoo koo dégg ci àdduna donc kon ñoom li leen fi seen maam bàyyil foor na parce que ñoom duñ dégg ex mukk ñu liggéey dañuy toog gars yi dem liggéey ñëw jox leen waaye yow doo liggéey da ngay toog gars yi di ñëw di la jox mais gars yi li ñu lay jox joxuñu la ko ndax yow de mais dañu la koy jox ndax sa barke maam moo tax ñu lay jox loolu noonu waa tey jii yow bu fekkee da ngaa dem ba nga xeeb tey li la fi sa maam bàyyil ah nga wàcc sa ànd dem nar dem simmi sa mbubu sa mbubu sëriñ dem sol mbubu politicien bu boobaa loo dégg xamal ne yow la li maam li li maam Ndiassane wax rek nee na ku macc tàngalu buur rek di nga wax lu neex buur ñun actuellement ni Sénégal ñun suñu sëriñ yi ñi nga xam ne ñun taalibe yi dañ leen a yaakaar ah ñëw jëbbalu ci ñoom te jébbaluñ ci ñoom ndax lan ndax ñoom ñoo daq jàng jébbaluñ ci ñoom ndax ñoo ëpp xam-xam mais dañoo jébbalu si ñoom parce que lu ñu yàlla digal la dañ jébbalu si ñoom parce que da euh, seen barke maam moo tax ñu jébbalu mais tey ñun bu ñu demee tey ba xam ne même Serigne soosu noonu tey ñu jébbalu si ñoom Serigne soosu ñoo ñu gën a bëgg lu neex non il est ñu xoolaat affaire yi parce que si léegi ñoo la gën a bëgg oto bu rafet ñoo la gën a bëgg euh, kër gu rafet gën laa bëgg jongoma yu rafet gën laa bëgg xam lépp léegi luy luy mbiru àdduna Serigne si ñoo la ko gën a bëgg waa léegi Serigne soosu noonu xeexalatuñu seen askan Serigne soosu noonu xoolatuñu ndax valeurs yi valeurs yi fi seen maam bàyyi woon xoolatuñ ndax valeurs yooyu ñu ngi fi sëriñ soosu léegi jàngaleetuñu alxuraan sëriñ soosu léegi ci ay hôtel la ñuy dëkk sëriñ soosu léegi ñoom la ñuy photo sëriñ soosu léegi ñoom la ñuy vidéo kon il est temps sëriñ si xoolaat seen bopp sëriñ si dañu war a xoolaat seen bopp xool revaloriser li leen fi seen maam bàyyil ñu xam ne li fi seen maam bàyyi du ay caaxaan gis nga Macky Sall tôt ou tard day dégg ex président de la république da koy dégg day dégg ancien chef d'état da koy dégg mais du benn sëriñ ba nga xam ne di nga dégg ñu ne Euh, sëriñ sëriñ diw Mbàkke ex sëriñ diw Mbàkke du am ci àdduna donc kon ñoom li leen fi seen maam bàyyil foor na comme doo dégg ñu ne la ex sëriñ diw ex sëriñ euh, diw diw si ex sëriñ doo ko dégg parce que li leen fi seen maam bàyyil dégg bëri na kii na lu foor la do dégg mukk ñu ne la euh, maam Baye Niass ñu ñu ne ñu ne ex sëriñ Niass doo ko dégg donc kon lépp lu amul ex si ex si Sénégal rek lépp lu amul ex fii ci àdduna rek loolu noonu fa suñu borom la jugee te lépp lu jugee fa suñu borom rek dafa nekk la nga xam ne mooy valeur lu jugewul fa yàlla rek amul valeur fii comprendre ñun ci yàlla lañ jugee mais waxin waxin su dofee nopp yi koy dégg dafay wér comprendre wax su fekkee wax dafa dof nopp yi koy dégg dafa wér a wér gis nga ñun suñu sëriñ si il est temps ñu revenir sur terre dem dellu ci li leen fi seen maam bàyyil te xam ne ñoom kat am nañ benn part de responsabilité bu mag ci nit Sénégal di doxee am nañ part de responsabilité bu mag ci ni askan wi di doxee parce que sàmm bu nekk sàmm nga te bu keroog yemal xiyaame yàlla dina la laaj naka nga sàmmee woon lañ la dénkoon sëriñ bu ñu lay dénk dañ da ngay da ngay ñëw jébbalu ci moom ne ko sëñ bi mu naa ah nga ne ko aslamtu nafsi jéggal naa la sama bopp àdduna ak alaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi waaye sëriñ boobu noonu kooku la mu gàddu rëyul sëriñ boobu lam mu gàddu ak a rëy yow nga taxaw nga ne yow léegi da ngay da nga da ngay da ngay jël nit ki teg ko ci yoon pour jëmale ko fa léegi la taxoon moom mu ñëw jébbalu ci yow gisatu ko ci yow il est temps sëriñ si xoolaat seen bopp nañu ma baal àq nag mais il temps ñu xoolaat seen parce que dëgg yàlla suñu borom moo ko moom ku li xaq wu kaana mu ran dëgg moom dañ koy wax donte dañuy rey gis nga sëriñ si dañu war a dem delluwaat ci tool yi delluwaat ci daara yi jàngale ji jéem a xam que ne kat carrément ñoom xam nga suñu borom da leen fee teg ngir ñu gindu askan wi du sëriñ bi dalaa gën de sëriñ bi gënu la mais sëriñ bi yàlla moo ko fi teg mu doon benn genre cordon ombilical entre yow ak sa borom donc kon kooku am na nu mu war a jikkoo kooku am na nu mu war a doxee kooku am na nu mu war a waxee waaye léegi tey jii nii ñun bu fekkee tey da ngay da dem fenn nga daje fa ak sa sëriñ muy génn ci benn hôtel sa waay bu boobaa ana ana ana ana valeur yi ñun Sénégal nañ xoolaat suñu bopp suñu bopp lañ war a xoolaat sëriñ si actuellement nii mën mën naa ne feebaru Sénégal actuellement nii sëriñ si la sëriñ si ñoo war a xoolaat seen bopp xoolaat nan la ñuy def pour yaraat askan wi comprendre parce que tey jii ni amul benn Macky Sall gënul fort benn sëriñ comprendre sëriñ mën naa ne tey jii ni moo li li taxaw Sénégal sëriñ fa gën a foor parce que lu lay àggale ci yàlla lu ne rek du ay caaxaan bu dee dëgg la su fekkee dëgg la lépp lu lay àggale ci yàlla rek du ay caaxaan comprendre nga donc dañu war a jëlaat xam nga delloowaat buum ci mbooy mbooy gi dem nekkaat gën a nekkaat ay dëggi dëggi taalibe jéem a nekkaat ay ay jeunes yu ambitieux jéem a xool nan la ñuy def pour suñu développement réew jëm a xool nan la ñuy def pour suñu développement xam nga pour nan la ñuy def pour pour pour bëgg suñu réew parce que man je pense que ne Sénégal ñun dañu manqué ñun mbëggeel si suñu réew dañ ko manqué ñun dañu manqué mbëggeel si suñu réew parce que nit ku bëgg sa réew dëggantaan xoolal man je pense que ne sa réew war na laa jaral nga jaay sa bakkan nit ku bëgg sa réew dëggantaan sa réew war na laa jaral xool nga génn ngir xeex benn affaire ba nga xam ne dalee leer ba leen li bu sottee tey askan wi yëpp dañ ciy ànd jariñoo ñun Sénégal dañoo war a toog xoolaat suñu bopp ku ci nekk fa nga nekk ak ci ka yaakaar da war a woowaat kilifa diine yi am nañ fa cër bu toll ne président de la république amul cër bu d'accord waaw waaw Sénégal diine yi am nañ fa pouvoir ba nga xam ne président de la république sax amu ko kilifa diine yooyu lillaahi wa rasuulihi nañ woowaat seen seen seen askan yu topp seen ginnaaw génne laat leen njàngaleem sëñ bi ne leen kat sëñ bi ak yi la mais xam nga aussi mhm. aussi lii ngay gis ni yëpp muy xew Sénégal ngay gis benn mhm. xale boo xamante ni seize ans la am am mhm. trente far xale bu jigéen bu am 16 mm. ans am 30 far de sol lu ko mm. neex ci biir kër gi 18 heures mu mm. génn jël taxi ak yore saagam bu ndaw dem cinq heures du matin mu mm-hmm. ñibbi si waat papam moo koy ubbil mm-hmm. buntu kër gi mu dugg. Mm-hmm. parce que moo fay fay loise wala moo fay fay facture wala moo fay joxe dépense te parents yi jéemuñu lijjanti fu xaalisu xaalis bi di jógee jéemuñu ko laaj fi ngay liggéeyee fan la kuy sa patron. Mhm. donc parent yi dañoo daw seen responsabilité te loolu mhm. pauvreté moo koy andi ñàkk baaxul mhm. ñàkk baaxul ñàkk ah baaxul boo gëmul yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay saali loolu moo indi problème yi am yëpp maintenant waaw ñàkk dañ koy xeex niñ koy xeexee mooy yow mi nga xam population bi moo la fal pan suñ suñu constitution pendant cinq ans sa responsabilité la nga créer ay mécanisme mhm. créé emploi mhm. créer ay bagages yoo xam nit ñi dinañ liggéey di am benn revenu mhm. minimum c'est vrai que créer nañ euh, bourse familiale mais bourse familiale tet bu nekk ay vingt mille wala vingt cinq mille te du ñëpp ñoo ko am mun nañu wax ni mooy de dix pour cent population bi ñoo ko am ci population boo xam ne quatre vingt pour cent population bi ay pauvre lañ bu ñu ndekkee du ñu añ wala bu ñu añee du ñu reer non ñu gouvernants yi liggéeyuñu ci dëkk boo xamante ni mm-hmm. dafa feeñ ci pétrole dafa feeñ ci zircon dafa feeñ ci phosphate dafa feeñ ci produit halieutique dafa feeñ ci ci ci ci ci or kenn xamul lu mu mm-hmm. toll mais Macky jaay na la Macky ay contrat wu cinq ans la signé te dans les normes moom moom dans les normes amul droit warul woon am droit signé contrat bu weesu mm-hmm. mandat am xam nga Sénégal lu ñu war a njëkk a lijjanti mooy suñu constitution tey tey dans les am na loi bu ko war a na ne président bu toog waroo signer contrat bu dépasser sa mandat parce que après sa mandat mhm. concerné wu la après sa mandat mhm. du sa problème comprendre nga mais ñun ñoo mhm. bëggul développer ñun ñoo bëggul avancer comprendre nga avec la complicité de beaucoup de personnalités loolu dafa war a jeex maintenant tey si ñun la des sénégalais yëpp jël seen appartenance yëpp teg fële c'est-à-dire Abdoulaye Wade moo neex wala Idi moo ma neex wala ma demb moo ma neex wala Sonko moo ma neex wala kii moo ma neex yooyu yëpp nañ ko jël mhm. ñu teg ko fële ñu xool mhm. ñu xool vraiment parmi candidat mhm. yëpp kan moo ci tane kan moo ci tane ñu jox ko suñu dëkk cinq ans ñu xool cinq ans bu liggéey mu amaat suñu confiance ñu renouveler ko yeneen cinq ans bu liggéeyul ñu jëlee ko fi loolu buñ ko defee léegi ñu commencé liggéey moo tax ma ne Macky Sall te fee war a jóge parce que message la boo xamante ni beneen président bu fi ñëw di nga xam ne sénégalais jogatuñ pour fontu dañoo bëgg a développé dañoo bëgg a développé xoolal machine machine mm-hmm. radiothérapie bi billaay jarul puis de sept cent million mais mm-hmm. ñoom ñoo wax seen journaliste yi ñu bind deux milliards sept cent wu nangam sangam deux milliards nangam mm-hmm. sangam sept cent millions loolu yëpp forme de sàcc la dañoo bëgg a xaalis bi machine yoo xamante ni Sénégal yëpp benn machine moo fa am te fonctionné wul dafa paan loolu fan lañ ko teg pendant ce temps jël ay multi millions di ko maye gauche droite ay milliards sax laay wax moo Siré Dia ak yeneen politiciens yi waaw dafay léegi waaw mais Ousmane dama lay uh-huh. dama lay euh, remercier dama lay bàyyi nga nuyu gars yi rapidement ma remercier dama yeggale ci uh-huh. yeneen point uh-huh. waaw d'accord xam nga xam nga la laa bëggoon leeral foofu rek c'est-à-dire Ousmane euh, réew bu réew bu pauvre dëgg la gouvernement bi am na ci part de responsabilité mais ñun tamit am nañ ci part de responsabilité ndax ñun liggéeyloowuñu suñu gouvernement ñun ñooy sàccloo suñu gouvernement vous savez le pourquoi parce que tey tey jii nii ñun bu fekkee tey da ngay dem ànd ak homme politique ndax intérêt kooku noonu tey jii nii bu demee tey ba falu da ngay ñëw nga ne ko boo man maa la taxawaloon fii maa la taxawaloon fee léegi man lan laay am sama part ci gato bi lan lay doon benn ba mu ngi ñaareel bi mooy ci côté ci côté pauvreté bi ngay wax Ousmane neexul ba néew mais Sénégal dañoo war a wàññi jur gu metti gi ñu nekkee te gis nga ñi ngay gis ñu takk ñaari jabar ñetti jabar ba ñeenti jabar ñooñu noonu ay pauvre lañ du du c'est très rare nga gis nit am xaalis ku takk ay ñetti jabar ñeenti jabar Sénégal ñi fa gën a pauvre ñoo la gën a bëgg ay ñetti takk ay jabar ñoo la gën a bëgg jur ay doom il est temps ñu distancer seen njur gi jur gu metti gi ñuy jur lañ war a bàyyi gaa yi nga xam ne tamit dañoo bëgg di takk yenn jabar nañ arrêté tamit xam nga yenn jabar yi ñuy takk ndax xam nga ñu ko su ma ko waxee ne jigéen ñu bëri dinañ ma mere mais dëgg dafa neexul comprendre nga dëgg neexul Ousmane doom boo ko juree dafa am lu la yàlla sant ci moom mooy da nga ko war dëkkal da nga ko war a dëkkoo di ko jox muy lekk di ko jox muy naan assuréel ko ñetti doomu penn naar yi bu feebaree nga faj ndëkk añ ak reer su feebaree nga faj ko comprendre mais ñun tey bu ñu demee tey Ousmane ba nga xam ne ñun Sénégal benn waajur waajur yi nga xam ne ñu ngi fay jox seen ay doom ndekkaañ ak reer bëreetul léegi doom yi léegi da nga leen assuré añ kese nga leen di jox léegi boo leen joxee añ 17 heures 18 heures ut jël nañ seen téléphone woote pour jéem a xool fan la ñuy kan la ñuy jëlal rendez-vous donc suñu jëlee rendez-vous foofu noonu génn 19 heures dem waa ji paye leen reer comprendre nga tëddee leen comprendre léegi bu ñu xëyee léegi xam nga bu bu tëddee ba guddi mu déposé ko jël xaalis jox ko ci la ko jox ci lay ndékki comprendre xale bu jigéen bi su bëggee cheveux naturel da koy lijjanti léegi Sénégal système mu lijjanti ba fa am moo tax réew mi maanaam ci misaal le Sénégal est pourri Sénégal dafa nëb billaay wallaay taala senegal dafa nëpp te nëb nëbu senegal kanam la jëm nëb gi Sénégal nëb kanam la jëm waaw xam naa ne bon du ma jël sa temps lu bëri parce que xam nga gars xam naa ne ñu ngi ñu ngi yàkkamti yeneen point yi waaw maa ngi lay sant di la gërëm te maa ngi jégalu tamit xam nga sama yeneen gars yi may déglu ñi ci ànd ak ñi ci àndul yëpp maa ngi leen jégalu ñu xam ne que ni tamit li ñu wax yëpp dañu wax rek pour defar quoi waxuñu benn yoon pour ñaar képp ku ma mës a saaga nag maa ngi lay jégalu bàyyi naa saaga quoi jaajëf Ousmane jaajëf bégee bégee Ousmane jaajëf bigab up waay waaw merci jaajëf waay euh, kooku mooy général Ousmane Ba euh, dootuma leen ko présenté yéen ñëpp xam ngeen ko euh, maa ngi jéem ne dafa bëgg a dugg suma ma gisee sa commentaire rek dinaa la dugal incha allah rapidement vite fait euh, ñu ñu ñu wax Mamorka gisuma gisuma sa commentaire pour dugal la voilà comme kooku gisuma commentaire am pour dugal ko dama leen bëgg liiral fii benn lettre bu ma jot waa ji daf ma bind mu ne ma dama bëgg nga yeggal lii ci Ousmane sunko ma ne ko man de Ousmane Sonko aw ba ak moom contact mais mun naa liiral leetre bi ci sama live comme ça peut-être dina ko dégg lettre bi laa leen bëgg a liiral mu ne musuma voté mu ne la politique de mon pays ne me convient pas mais Sonko wax na ay wax yu tax ma bëgg ko wóolu woolu ko te bëgg naa ko lool mu ne moom laay parrainé mais monsieur Ousmane Sonko je m'adresse direct à vous bu fekkee nii danga nar a ñëw nax sénégalais yi yàlla bu la sama ñaan gi dal bu dee danga nar a ñëw mel ni Macky Sall yàlla bu la sama ñaan gi dal bu dee danga nar a ñëw doon président bu jafe askan wi duñu jege te doo dox ci luy doxal suñu réew yàlla bu la sama ñaan gi dal bu dee da nga nar ñëw jeunesse bi du liggéey te dàqoo fi po mi ak caaxaan mi ak supériorité bi ñuy dund mooy ñi am di gën a am ni ñàkk di gën a ñàkk yàlla bu la sama ñaan gi dal ñu ne yow usmaan Sonko ibaaru nga mu ne loolu leeruma doonal sax juif bu la neexee ma nga mën a servir peuple bi rekk wane ñu yoonu jëm kanam loolu kese moo am mal solo askan wi mu ne murit nga tëjaan nga chrétien nga mun a nekkal lu la neex yow mu mënal dimbali suñu réew rek te mu avancé te suqat réew mi ndax vraiment sonn nañu waaw yokkute bu dee yépp nag matale nga ko ndax am nga yar am nga teggin ni ngay waxe convaincre nañu mu ne taxawul askan bi bu la yàlla defee président mu ne bu fekkee lii nii yëpp naroo ko respecte naroo liggéey mu ne yàlla bu la yàlla def président bu dee nag lii nii yëpp soxol ñu soxol na la te buñ la joxee réew mi nga liggéey mu ne ko yàlla na la yàlla def président euh, février 2019 te yàlla musal la ci pexe noonu waaw loolu benn message la bu ma jot bu benn waay bu dëkk Kaolack envoyé ma ma ko doon liir rek pour seddoo ko ak yéen buñ jógee ci loolu euh, Mamor Ka invité naa ko accepté wul invitation bi xam naa gisu ko kon dama leen di ñaanal di leen baal te di leen baalu ak te di leen jox rendez-vous samedi incha allah jërë ngeen jëf merci.